jëfandikoo téléphone portable ci bërëb yi nga xamante ni dañ fay tàggat ndaw ñi maanaam ci lekkool yi loolee jamono ji daal dee bëri lool te bu njëkk téléphone portable faraluñu woon di ko gis ci li nga xamante ne moom mooy lekkool yi ñu bëri daal di ci am ay gis-gis yu wute ndaam téléphone portable mën na tax ba ñii di élèves yi duñu mën a concentré bu baax ci seenum jàng waaye tamit ca beneen wàll dina leen mën a jàppale ngir ñu mën a amal seenum jàng ca na mu waree. suñu loolu lool nekkul lu baax lool mu nañ ko loolu mun nañ ko utiliser vacance wante école bu ubbee dañ ko war a interdire xale waru ko gis loolu waru ko yor loolu dañ ko war a bàyyi waruñu bàyyi xale yi di yor ay téléphone école yi sax war a interdire xale di yor téléphone xale bu ñu gis mu yor téléphone ñun nangu ko loolu du yoon. téléphone portable yi mi daf ñuy porter euh, si suñu jàng quoi loo xamante ni si la ñu mën a basé wu pour a génne ay sources yu bëri. comme ñun nga xamante ne ay élèves terminale la ñuy def surtout la littérature bi foofu la ñuy base pour gën a mën a gën a mën a sukkandiku quoi si lu ñuy jàng xam nga mais des fois am na ay yoo xamante ne ay ay propos yu néfaste quoi si soo ko bëggee quoi négativement si yow bu nekkee da ngaa bëgg xool leneen loo xamante ne bu la apporter benn njëriñ mais si côté positive bi ay dictionnaire yu bëri cours philosophique yi mën nga ko résumer si internet bi grâce à internet tu vois. am na ay opportunité yu bëri yoo xamante ne mën nga si jëriñu quoi en tant que un élève ou bien un jeune sénégalais xam nga bu ambitieux quoi. téléphone essayé ni lu mu la mën a apporter du livre moo la ko mën apporter du dictionnaire moo la ko mën apporter. loolu dara quoi mënu leen tere ñu ñu jàng parce que ay groupe whatsapp réseaux sociaux yooyu yëpp ça fait partie ñun suñu classe mi ngi nii am nañ groupe whatsapp et que exercice yu bëri foofu lañ koy defee loolu man gisuma si benn kii bu néfaste quoi négatif. téléphone moom xam nga comme genre outil de divertissement la quoi xam nga. dafa am temps am jàng tamit dafa am temps mun nga ko utiliser euh, du samedi waaw waaw samedi ak dimanche mun nga ko utiliser mais du lundi au vendredi mun nga concentré sa jàng man daal comme man nu ma koy defee quoi. téléphone daal terewul wut kenn jàng moom terewul kenn jàng nit ki daal boo bëggee jàng moom di nga jàng. Mm, parfois mu tere ñu concentré wu mais parfois duñu tere ñu concentré parce que ku bëgg jàng day jàng ku bëggul jàng du jàng bu fekkee ne. bu fekkee ne ñoom bëgg nañ jàng ak portable bi mun na leen ko jox mais bu fekkee ne mënu jàng mënuñu jàng ak portable bi jarul ñu leen koy jox. da gis élèves yoo xamante ne dañuy def cours classe ñu war recopier duñ recopier dañuy préféré ah photo affaire bi dem gàlle te buñ demee seen kër duñ jàng portable wala wala wala boog bu ñu tëgg seen portable di jàng ñu gis ñu ñu ñu woo si téléphone dañuy préféré jël appel beeg wala tontu ay message que ñuy que ñuy kii sa téléphone wala dara xam nga. waaw aussi tamit téléphone pour man c'est pas bon sax nga koy yóbbu école ndax day tax nga avoir la pares da ngay da ngay da ngay taay la recopier taay la jàng xam nga bëri daal mën na see xew daal te léegi élèves yi léegi portable dañ ko jëlee comme source de de kii tricherie quoi. téléphone moom man mën nañ def lu ne lu ne ko si def di dugg si réseaux sociaux yi def lu leen neex loolu nekk yoon quoi. parents yi tamit dañoo téléphone di ko jox seen doom loolu dafa nekk normal parce que téléphone dafa mën a yàq élève mën na mën na yàq lu bari. kool moom terewul la jàng yow yaa ko rek ndax bëgg nga jàng nga jàng su nekkee tamit bëggoo jàng nga yor sa kool doo jàng ndax am na ñoom dañuy yor seen portable ordinateur yi pour si jàng mun nga yor nga réviser après soo amee temps bu ngay foo nga connecté wu. ah man moom sama situation quoi sa doom su la ñaanee téléphone jëlal nga joxo su nekkee day jàng même su jàngul sa joxo jàng si bëgg-bëgg la du kii du question di ay portable ay ordinateur jàng si bëgg-bëgg la yow yaa bëgg nga jàng soo bëggul doo jàng loolu kenn mën na si dara